pour liggéey ak euh, les nouveaux tenants. non attends je te li ma lay wax nii mais maa ngi liggéey ak ñoom parce que li ma xalaat wax naa leen. non mais waxuma euh, nga liggéey ak ñoom dem fa euh, ànd ak ñoom comme ni nga ko defee woon ak Macky Sall. non il n'est pas question. man je suis dans l'opposition mu leer. non xaaral nga ne. dama ne la il n'est pas question. que nga rejoindre ñoom Bassirou Diomaye ak ñoom Ousmane Sonko. non li ma mën a def wax naa ko ñëpp di ko dégg. sama waa kër xam nañ ko sama waa parti xam nañu ko lépp lu ma jàpp ne lu baax la ci réew mi dinaa leen ko wax. soit mën naa ko bind jox leen mën naa ci woon nit téléphone parce que séq naa ko ak ñoom ministre yu ci bëri séq naa ko ak ñoom wooteente téléphone. mais il n'est pas question nga rejoindre leen. non jamais. pourquoi ah, pour faire quoi Serigne Mbacké never say never de. dama déglu dama lay wax. moo ko doon wax xam nga man bi may dem di rejoindre Macky Sall dama ko affiché mu leer waa PDS yëpp di ma xas di ma saaga. ma assumer samay position waaye ñoom ña ma doon saaga sax ñoom fu mujj ëpp doole ba dañ ma daan buux ci buntu bi <laughs> man man Macky Sall moo sama waay nag. non gaa gaaral ma dugg na gaaral ma dugg na. <laughs> ñoo génne PDS parce que tam ba dëmb lu ñu wax ko alors voilà kii boobu Macky Sall seen affaire wóorul bi di def et di ko xas. <laughs> n'est-ce pas dëgg wax nga dëgg ñoom ñoo la dàqoon. <laughs> ñuy defar secrétariat national. ñoom personnes ñu dirigé ko ñu jël ko Omar Sarr dirigé ko ñu génne ma ñu teg fële. bu ñuy réunion di ma nëbbu man ma xam li ma xam jël yoon wi ma jël mujj gi nag léeg-léeg xam nga lu ma doon reeloo. <laughs> am na benn jour dama ree xam ni Macky Sall daanaan la. daf ni ma mais daf ma woo quoi ni tu passes à au palais à vingt vingt une heures moins vingt fekk na ma fa xam nga boo duggee ca fond bi noonu mun ma mm. bon may ma tuuti ma régler quelques détails fi ma toog rek léeg-léeg ma gis sama gars yi kenn sol abbaye romb <laughs> ah moo ko tey <laughs> mais moo romb ma mel ni gisuma la ma toog rek ñaar ñett ñaar ba pare bu ñëwee bon eh, eh. <laughs> lan ko président nous sommes bien sûr mais xam tax ma la never say never xam nga bi ngeen perte nguur bi euh, maa ngi koy rappelé sànq ba nga créer sa courant boobu fidélité mhm. euh, da nga da nga gàddu woon xeex bi gàdd woon la cause de de de de de Karim de Karim Wade ah? oui, mais après nga génn créer sa sa sa mouvement mhm. mais ni nga pour position yi nga jël de 2012 à 2014 contre Macky Sall je pense même que est-ce que woowuñ la fi la euh, non non non non ah, ah, euh, yi nga jël de 2012 à 2014. oui euh, on était en droit de se dire ak ni nga meloon ak Ablaye Wade on était en droit de se dire que Serigne Mbacké Ndiaye mi du mas a du mas a liggéey ak Macky Sall ak fi ma Macky Sall jaar ak yéen tamit ba ngeen perte nguur bi alors que da ngeen doon wax ne c'est votre camarade de parti loolu moo tax ma ne la. Euh, never say never xam nga loolu aussi. Euh, may mën a jërëjëf bi nga soulever cette question là parce que dafa am lu muy wane man musuma dugg lu Ablaye di yëgul wala mu ànd ceeg man wala mu sant dañu perte pouvoir bi ñu génne list vingt cinq notable ni amuñu droit quitter le territoire sénégalais bu ngeen fàttali ko moo tax d'ailleurs bi ñuy coow coowu passeport diplomatique di ci wax fii yéen i gars oh, jaru ko nag parce que ñun def nañ lu raw loolu. Mm-hmm. ndax Macky Sall wax dëgg bi mu jëlee pouvoir bi première mesure bi ñu jëloon waxuma sax passeport diplôme mais dañ bind liste. interdit de sortie du territoire interdit de sortie du territoire ba yaa ngi fàttali ko bii fii Ousmane Ngom moom dem Guinée mu indi fi coow lu dul jeex. Mm-hmm. man bokk moon ci liste boobu président Wade dem Versailles may dem di ko fa fekki de temps en temps. donc yow jàpp nga ne mesure bi ci passeport yi ce n'est pas que normal xam nga lu tax. Mm. Maïmouna da nga doon ministre de l'intérieur sa passeport ñu def ci Maïmouna Ndour fay ministre jour ba ñu defee un décret def remaniement ni doonatoo ministre passeport boobu valable parce que. mais mais war na am délai war am délai de décence nag may ma tuuti rek ma eggale nekkatoo ministre. xam nga loolu dafay dellu soit ci beneen cas je vais en parler tout à nekkatoo ministre man bi ma demee ba loolu am man sama cas dama bind ministre affaires étrangères delloo leen seen passeport ñu joxaat ma beneen c'est aussi simple que ça li nga ni xam nga euh, président Macky Sall dafa nekkoon président ba avril 2 avril kon ba le premier avril bu ko neexee jël ay mesures mais pourtant jël ni fa ay mesures ay nit di ko critiquer waru ko woon def par élégance par ceci par cela donc c'est ça bref. mais mais mais mais ci passeport bi tamit. quelqu'un qui sort d'une fonction gouvernementale. Mm-hmm. Euh, dafay recevoir salaire am pendant six mois. dafay garder son son son logement de fonction mm-hmm. pendant six mois. Mm-hmm. mais war nañ tamit par décence may ko six mois mu lijjanti ses titres de voyage. je suis d'accord Maïmouna. mais il doit y avoir un délai de décence quand même. droit ak faveur bokkul. may mun a bu la neexee soo ma fekkee ma toog doo ma nuyu tu n'es pas obligé nuyu ma nuyoo bi nag rafet na waaye soo ma nuyuwul rek du tere man damay dox. mais élégance républicaine tamit dafa baax. je suis d' ci élégance républicaine looloo tax d' ailleurs boo doonee ministre benn jour ba ba ngay dee ñu lay woo monsieur le ministre. le président ñu koy monsieur le président l' ambassadeur ñu ko excellence monsieur l' ambassadeur ça c' est les de la république ko nit respecté wul jarul xuloo jarul xeex mais je termine li nga doon wax léegi donc bi ma demee di seeti président Wade. mu bind ay lettre jox ma benn bi sax Cheikh Amar la ko jox il est témoin ni ko boo demee joxal na ko Macky Sall ci lettre boobu mu def ci ay conseil am lu mu ko conseillé wax ko lu jëm ci le gouvernement ak yeneen ak yeneen ak yeneen boobu je n'entre pas dans les jël copie lettre bi jox ma ni ma yow boo demee boo gisee Macky Sall boo ko wane lettre dina xam ne maa la yónni ma ñibbisi dem seeti Macky Sall je je cite Madiambal Diagne à témoin parce que jour boobu bi may dem palais ñoo ànd Macky Sall recevoir ma ñu toog waxtaan lan ma doon doxi mu jëm ci président Wade jëm ci le statut de l' ancien chef de l' état Macky Sall réglé ko façon boo nga xam ni ni ñu koy waxee ñun taalibe yi lu kawe sama njort ensuite on a parlé du cas de Karim Wade mu ni ma waxaat góor gi ni ko lettre bi ma bind dama ko bëggoon répondre par écrit mais daal di ree ni ma xam naa sama gars yi boo ko répondre suba ñu publier ko ci presse bi mais nee ko. man awma pouvoir ñu jàpp nit ma xëy ni bàyyi leen ko mu dem li ma mën a def actionner tout mes leviers pour ñu gaaw a amal un jugement si Karim est libéré on di si le condamné je mangage à le gracier. mais c'est pour dire quoi li nga may expliquer nii. li ngay wax ci PDS mi boobu laa lay wax. c'est-à-dire. li question yi nga soulevé sur le PDS. c'est pourquoi ma indiwaat loolu. Hmm. moo tax ma wax lal da may wax position yi ma doon jël face à Macky Sall. Hmm. <coughs> si toutes les déclarations man yi ma def de 2012 2014 ba bi ñu retrouvé avec avec avec Macky Sall posture bii moom laa am parce que justement Ablaye Wade Karim Wade ñoo ma doon yónni may dem di seeti Macky di dellu si mais jàpp nga ne daal posture boobu nga amoon mu euh, yow daal yaa ngi ci opposition. maa ngi ci opposition mu leer maa ngi ànd ak samay nit. léegi bu dee Sonko mool ne dama laa soxla grand. ma dem dégluju ko ci lu may doyee. non bu la nee dama laa soxla nga ñëw liggéey ak mais maa ngi liggéey ak ñoom déggoo li mu non bu la nee dama laa soxla nekk dans l'attelage gouvernemental c'est pas possible non damaa bëgg nga rejoindre ñu rejoindre fan dans leur parti non rejoindre seen camp ma la majorité waaw su dans l'opposition xanaa <laughs> merci man lu ma nit mën a bañ bañal nag nangul na ma ni samay position moom dama koy da koy assumer dama koy assumer mais merci je suis et